Sénégal asalaamaaleykum yéen ñi ngeen xam ci yéen a nekk fii ci Ngoumba Géoul ak waa Géoul AH TV nee naa la tey dañuy def ni benn émission boo xam ci après le match la ñu daal ci kenn monsieur Diagne ay 5 minutes 10 minutes donc lañ koy defar monsieur Diagne ñoo lay nuyu. waaw ah, alors maa ngi lay fay maa ngi sant si euh, invitation bi di la si gërëm waaw. Sénégal Tanzanie. Sénégal Tanzanie waaw. tey nan nan nga gisee match bi. affiche la woon bu bu jafewul trop Sénégal ah. waaw par rapport ak euh, euh, Tanzanie. Tanzanie qui boit xam comme ni ko sa 1980 ba léegi Coupe d'Afrique mm-hmm. mais na ni wàcc bees la fi quoi. pareil bon on boo les qualité joueurs donc euh, Sénégal li mu am si ay joueurs vraiment il xam a championnat yu mag yi la ñuy évoluer Tanzanie amu ko. Mm-hmm. Tanzanie peut-être ben joueur bu ñu mën wax la fa am muy le capitaine. Mm-hmm. Samata Samata peut-être à part Samata bon ñi des ce sont des qui inconnus du milieu bon donc Sénégal affiche bi yomb la en région.

donc heure bi waroon na fekk ñu laminer Sénégal Tanzanie biti dafa waroon bari si yoon. normalement dafa on bari parce que da nga ko waroon cartonné daal en quelque sorte. parce que niveau yi bokkuñu. voilà pour que maanaam ñeneen ñi nga xam ci ñooy ñëw au moins sax. ñu mën a bàyyi xel Sénégal. c'est ça parce que niveau yi bokkuñu palmarès yi bokkuñu. Mhm. parce que un quart de finaliste euh, mondial bu dem coupe du monde quart de finaliste nekk finaliste coupe d'Afrique n'est-ce pas beaucoup le coup à ne bon dans le milieu, dans le milieu du football africain, il est inconnu dans le milieu du football mondial il est inconnu mais Tanzanie Tanzanie c'est l'un si leen lañ pas si football cest ce pas kon tey jii waroon ay 5 6 jëm avec les deux buteurs Keita Baldé et Krépin Djata, deux mots pour pour pour ñoom ñaar tey c'est match waaw li a Keita il a rempli son sa part du contrat. bon remplacer Sadio Mané ce qui est sûr mooy bu fi Sadio nekkoon mën nañu. peut-être si banc bi lay toog remplaçant lay nekk ndax place am la nekk Sadio pour nga remplacer ko si équipe nationale équipe bu mu mënti doon yombul mu ñëw remplacer ko n'est-ce pas wane boppam ba dugal nest kooku moo amul ko mën a wax. wane na euh, def na ko santoon quoi. Crépin tamit li ma si wax tamit mooy chapeau laa koy tiré quoi. parce que moom équipe bu xale bu toll noonu waxuma la xale la ba pare mi ngi doog a ñëw équipe nationale te ñëw wane boppam. euh, occupé ah, sans sans marché sans complexe ici devant ñi nga peut-être bi tamit nañ ni bon quoi. joueur ci ci ci ci kan défendre axe bi beaucoup donné. ah très bien non, non, xam football xale koy def ba pare jom moo koy def li mu rek mooy dafa wane ni jom jom maanaam dafa wane jom man li ma ko gisee nii maa ngi ko gëj a gis si jours yu njëkk yi ay ñëw El Hadj Diouf tey jii ay genre El Hadj Diouf rek la ma def jox parce que dafa ñëw wane boppam di ko nga koy gis partout dans le terrain mu ñëw di di góorgóorlu bañ am ndam tey vraiment crépé chapeau à lui quoi mm-hmm. waaw vraiment voilà ak le jeune Ismaïla Sarr ñoom ñaar ñoo ci nekk xale yoo xam ci dañoo xam jom nag nag macha allah am nañ jom lool ak suñu axe défense bi jeu bi gars yi tey damaa gis ni Sénégal maanaam dañuy marqué rek fu ñu toll dañuy marqué duñu dem jël tig mais benn problème la ñu amoon muy que ni hmm. dugal bi. c'est ça ah. waaw non moom kay Sénégal tey li ñu mën wax mooy euh, bu fekkoon tey liñ football. Hmm. valeur bi ñu waree. Hmm. répondre nañ ko si biir. mooy li wax kon ñii dañ leen di tas. comme ni ko gars yi jargon bi di utilisé ñi tas nañ leen kon dañuy tas waa Tanzanie tey mm-hmm. nest kon te jii 8-0 la ñuy wax 7-0 mm-hmm. wala 5 5 jëm ko waaw n'est-ce pas loolu rek mooy comme ni nga ko wax loolu rek moo mooy dugal bit yi mm-hmm. waaw te foofu man gisoon naa ni bon mbay ñu nee dugal dugal 3 bi ko bi ñu nee mi-temps doxul il y a un un très grand attaque koo xam ne tey ma ngay toj fa mu dëkk muy Mbaye Diagne. Mbaye Diagne ok waaw tey waroon na à la place de Moussa Konaté mais je trouvais bien que Mbaye Diagne mu ñëw def patam de xool. doo dugg équipe nationale si compétition bu mag bi nii mu ñëw wane boppam n'est-ce pas moo gën parce que Moussa yàgg na fee jaar ah. Mm. vraiment yàgg na fee jaar. Mm. mais comparé à Mbaye Diagne si championnat Turquie bon man je voyais que ne moom moo waroon ñëw.

apport buñ ko xam nga attaquant militaire milieu terrain jëli bal wala défense jox ko bal mu ñëw. peut-être dafa fekkoon tamit ay ñoom milieu bi fekk épuisé nañ wala boog amatuñ benn kii si match bi bay mën a jëli bal yi di ko. tey jii maanaam Sénégal sans Sadio Mané est-ce que Sénégal mën na football ay match sans Sadio Mané. oui pourquoi pas euh, tey li ñu wane par rapport occasion yi am laa wax buñ ko dugaloo ak li ñu war ak li ñu war a fi ma bi mujjee mhm. war nañ ma xam ne tamit Sadio Mané bon.

parce que am na équipe yu bëri yu mu daal ah, ay ay comme comme championnat européen yi Barça looloo ko daal. Mm-hmm. Messi jël jël lépp wékk si moom trop su doxul équipe du dox nest te loolu tamit Sénégal war si mën a war na war a mën a jànge si loolu bañ bañ a dépendre Sadio parce que bañ lay ñëw tey ëllëg mm-hmm. tamit il faut ñu wàññi euh, war nañ ko mën a remplacer tey moom la Diao Baldé def. ndax ku ne tey yaa remplacer Sadio loolu rek doy na motivation. Mm-hmm. wane sa bopp pour wane ni saa boo fi am ñu a remplacer ñi ngi fi bon bu ñëwee tamit dafay a neex mais mën na ñëw tamit affaire bi a metti xam nga ñëpp jël ñu jël marché bi def mu dépositaire teg ko marché bi ñooñu xam loolu ñëw di contrer équipe football yàqu ba li ñu waroon am duñ ko am waaw. léegi nag message jox que prochain match yi. match yi ñu continuer sur cette lancée rek. gën di góor góorlu gën a wane ni ñoom li ma ko waxee ambassadeur euh, Sénégal lañ foofu n'est-ce pas siggil drapeau réew mi siggil ñi nga xam ne mooy peuple Sénégal bi nga xam ne ñoo am si ñoom yaakaar bañ dem foofu pour ñu ñu mbubboo loolu chaque fois ñu di ko xalaat bu ko ne dinañ gën a góorlu di wane comme li jour yu njëkk yi ñu ci doon mel ay ñoom El Hadj Diouf ay Fadiga ay ñoom euh, Henri Camara fulla ji amoon n'est-ce pas ak seen kursi boobu Aliou Cissé fulla boobu ñu amoon

def li nekk si boppam parce que dañ kaa doylu direction technique bi tànn ko dafa yaa ñu doy jox ko seen équipe di ko fay xaalis moom mu mun xam loolu moom tam en tant que sénégalais xam ni peuple bi ko jiital moom itam euh, muy demee xelam soo amee lu muy laaj am na direction technique mu woo leen laaj leen discuter ak ñoom si loolu mais pas muy diglu yenn yi xam nga yenn genre yooyu ba mu leen diglu quoi na aller de l'avant rek teg ñi nga xam ni ñoo war a football mu teg teg les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. waaw su ko defee daal coow du jib bu jëlee les hommes qu'il faut teg leen à la place qu'il faut bon coow du jib quoi yaakaar naa. voilà voilà merci monsieur Dia nee naa la dañuy def émission boo xam ci après le match lañ koy wax à chaque fois rek bu Sénégal football ba pare dañuy ñëw toog nii juste pour gën a dundal la télé bi rek ñu ciy waxtaan ñu xam ne ñun ñoo ngi nii ak waa Gueoulart monsieur Dia ñu ngi lay remercier ba suñu euh, prochaine match. Euh, parce merci beaucoup.